asalaamaaleykum mbokki Touba Argentine TV mbokki Baol Média euh, tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Ndakaaru ci Caaroy euh, fekk si waa mouvement takku jug ngir euh, li nga xam ni moom lañu taxawal muy ay ndog yoo xam ne dafa am am solo ndax ku ne gis nañu ne dikkoon ci dëkk bu sell boobule ci Touba ci quartier Kër Ñang dikkoon fa amal fa ay ndog yu am solo tey nag nga xam ne moom mooy samedi bi mujj ci weer koox di ñaar fukki fan ak juróom benn Euh, ñu amee ko fi nga xam te ni moom mooy Ndakaaru Njaay xam naa damay ànd ak sama caméraman rek ñu daal di xool dëkkandoo yi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw teew si ci bis bi ba xam naka la ñu ko gisee sama caméraman topp ñu dem. waaw bis bi day ah bisu ginnaaw raay yëpp la bisu ñëpp la macha allah lii yaakaar naa bi mooy quatre ans xaw ma cinq xale yi di ko def ba yàlla def jàpp ci loxoom jàpp ci waaw xale yi nag ñoom lii mooy seen objectif quoi lu baax rek. liggéey lu baax julli woor jaamu yàlla affaire affaire yu caaxaan daal da nekk ci dëgg yàlla man ba ma fi ñëwee yàggul mais dañoo ñëw jël lépp jox ma ko ma jiite ko ba ci lépp fan ci club beeg ñëpp xam lu ma def lu ma wax loolu la ñuy def lu ma la bàyyi la ñu bàyyi yu dëggal ma nag donc xale yu baax ba ci jigéen ñi ñëpp macha allah waaw ñoom daal ñoo ngi rek xale yaa ngi quoi waaw. kon bu ma la déggee mën ne njiit nga ci biir euh, euh, mouvement bi. waaw waaw waaw macha allah waaw waaw. ban côté nga ci féete ci wàllu njiit. Euh, lu lu mu di xew rek muy wàllu combat yeeg wàllu assos beeg wàllu réunion wàllu liggéey bi yëpp dañ ma ci waxoon sama xalaat ñu mën leen nii la rek nii la mais du ma si président du ma adjoint du ma dara mais dañoo jël arbitre jiital ma ci kaw waaw loolu nag président bi la moo ma ko jox lépp maanaam waaw moo ma ko jox lépp waaw lu ma la ko su dee nangam sax ma la ko bàyyi defal nangam sax mu def loolu. waaw bëggoon na maa xam bi euh, mouvement bi lan la composé pour mouvement bi dëgg-dëgg lan la. mouvement bi yaatu na lépp a ngi ci jàppalante. maanaam boo amee naqar ñu ñëw boo amee bànneex ñu ñëw xam nga lu mu di xew daal maa bi daal xale yi ginnaaw raay yëpp la daal macha allah am na doole daal waaw kon moom su ma déggee ñu ne baam ba moo def lii am nga jàppale ñu rek si bool ko ci gërëm moom tamit ah ji nañu teraanga teraanga rek teraanga koy delloo. ndax ci euh, kooru 2019 bi rek ngeen commencé euh, sos li nga xam ne mooy comme joxe ay ndogu wala daan ngeen ko def yeneen at yi. yàgg na nag macha yàgg na yaakaar naa bi mooy 4 ans xaw ma yàgg na xale yi moom euh, def lu baax moom dañ ko tàmm. ba fi problème problème bu fi amee sax sans sans dara ñooy dem police ñooy liggéenti xam nga ñooy jubóolee ñoom daal macha allah daal waaw billaahi wallaahi tallaahi ñooy xaaral quartier bi def lu baax waaw ñoom tamit nag ah ma leen di conseil lu baax rek. bi tur la. Laat la Cheikh Abdoulaye Diallo. Laat Diallo lan mooy sa taxawaay ci bés bi. waaw bés dama wax dëgg yàlla moom dañuy avant tout ñëpp sama rakk yeeg sama mag yeeg sama papa yeeg sama yaay ñëpp dinañ ne man aw ma seen fay. parce que man tey jii mën naa ne xale laa si koñ bi te saa bu dara amee rek bala ñoo kenn bala ñoo jiital dara si jeunesse yi man la ñuy woo laaj ma sama xalaat wax su lu rafet yaa ngi dégg li si des yàlla suñu borom dimbaluñ si. cant yi dañ ko daan def chaque at mais ren dañoo ñëw am ku ñëw koo xam dañoo ñëw dooleel ñu yaa ngi dégg parce que yoonu Sëriñ Tuubaa moom su waay def rek tànk kanam la am yaa ngi dégg léegi après man la sa waa ñu jël lépp def ko mu nekk benn mu nekk geste bu rafet mu nekk affaire bu rafet laal mu laal instant mënu ma wax parce que sama xol moo fees amul lu def lu dul fay samay dëkkandoo samay mag samay rak samay yaay samay lépp di wax ne lu ñu mën ren déwén yàlla mun lu ko raw kii xam ne moo ñu may loxo lu mun ren déwén yàlla mun lu ko raw yéen ñi xam ne yéen ay journaliste dakk seen yitte di ñëw li ngeen mën ren tamit déwén yàlla ngeen ko mën waaw loolu la am si mais waaw dañu ne yow yaa jiite comme li nga xam ne moom mooy wàllu daayira bi ñuy laaj ndax yow yaa ko sos wala ñoom dañ ko sos ba pare jëlaat ko teg ko ci sa loxo waaw c'est fii dañoo nekk ay dañoo ay xale yoo xam ne ñun ñëpp benn lañ te ji xale bu gën a ndaw sax bu waxee dara sax ñu ñëpp dañ koy rafetlu may ko doole man mën naa ne fii ba ma fi ñëwee yàgg na yàggul man dëkk ma fii maa ngi dëkk si ginnaaw mais ñëw fi ñëpp yaatal ñëpp def ma comme seen bopp ñu commencé fii di teg kafe di defar ay ndogu mën naa ne maa ñaar nit rek ñoo ko doon def mais comme li ma la wax sànq moom tànk kanam la si la gars yi benn ñaar di ñëw ba tey lii am tey kon dañ koy sant suñu borom ñaan nañu yàlla déwén tamit ñu am leneen lu raw lii waaw affaire bi daal ci loolu la sasoo quoi. mën nañu xam ndax bi ngeen koy door door nan la demee woon situation bi. ñu métti woon na moom wax dëgg yàlla. parce que tey jii dañoo nekk dëkk boo xam ne ñoo nekk jamono joo xam ne boo def dara même boo toogee ci mbedd bi julli sax am na ñu lay toog dina critiquer mais boo def te yàlla tax yëpp doo ko contrôler dafal te yàlla tax rek après ku la ciy fekk si fekk si la loolu la quoi. d'accord euh, ndax mouvement bi nga xam ne dafa ñëw ngir doole leen dafay continuer toujours wala pour koor gi rek la ak ndogu yi waaw ñaan nañu yàlla mu continuer parce que ñun gis nañ suñu bopp parce que dañ am ay jàng muy métti suñu. mais tey jii lii mën naa ne tey yàlla moo yombalal lii ñun kii ñu koy sas man yàlla xam na ne turam sax xaw ma ko damaa dégg-dégg yet sam benn xarit ñëw na ma ah muy sàmm koo xam ne sama xarit la ñoo fondoo defandoo lépp mu ñëw na ma dañoo bëgg a def nii ak nii ak nii daa ku ñu doolal mu ne ko loolu yoonu Serigne Touba bi kenn dafa yaatu ñëpp xañ nañ si ñëw na ne dañuy yaatal dañ ko yaatal moom nag lu mu mun ba dimbali ñu si defal ñu ko te yàlla tax ñan nañ yàlla tey ji ëllëg mu bañ a rëccu dara ci lu mu def ren ba tax ëllëg mu yokk lu mu def ñun wax nañ lu may yëbbante rek mooy maanaam moom suñu xol seet na si moom lu mën ren yàlla na ko mun déwén lu ko tax mu jug bay dimbali jaamu yàlla yi yàlla na ko suñu borom dimbali te yàlla tax la am si lu ma wax. lan ngay mbooloo bi nga xam ne ñu ngi topp sa ginnaaw ak ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw te dikkaguñ. waaw ñooñu ama seen fay billaay walaay ama seen fay fii nii kër gu ma neex tey jii nii dugg damay dal jàmm fii mun naa ne man nit ñoom bëggal seen bopp ma ko leen wax mooy maanaam maa ngi jégalu ñoom ñëpp avant tout dama leen jégalu parce que ama seen fay tey jii bu ma ñëwoon leen kañ dem fee léegi déplacé base def ko fee léegi ñoom du ci teg baat mu naan dëggal boobu ñu ma am ñu ma def yàlla na yàlla fay seen xol mun naa ne yàlla na yàlla bañ a def leen loo xam ne dañuy rëcc luñ ma toppee loolu lu may wax